Touba ca kanam moo taxawal programme bu am solo ngir ànd ak yéen ci màggalu Touba atum 2018 yëkkati lu toll ci fanweeri million ci koppari CFA ngir lu ëpp fukki quartier yoo xamante ne bii ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba mën a am ndox mu doy mu sell. lu toll ci junniy làmp mu fës ko yéene samp ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir mën a yokk leeraay bi ba mën a dolli itam lépp lu jëm ci wàllu kaaraange waaye mu am yeneen jéego yu am solo yoo xamante ne bii fës na ko yéene def muy fexe ba tàqaleeg dëkk bu sell bi di Touba lépp lu jëm ci wàllu micro loolu nag tax na Touba ca kanam fas yéena pomp dëkk bu sell bi di Touba ak mboolem li ko wër ngir fexe ba aaru ci lépp lu jëm ci wàllu micro moo xam mu yooyu wala lépp loo xamante ne bii mën naa indi jàngoro ngir waajal màggalu Touba édition 2018 liggéey bu am solo boobu nag Touba ca kanam fas yéene koo door gannaaw bu ñu julee gee ba noppi nag tax na muy soññ mbooleem askan wi nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir barab yi nga xamante ne bii dañu fa daan def ay lekk ñu mën koo tëj wala ñu bàyyi ko xel mboolem ñi nga xamante ne bi itam dañoo yor ay bassin seen bii kër wala bépp barab boo xamante ne bi ñam wu ñuy jëfandikoo lañ cay def ñu mën koo tëj ba ñu mën a def liggéey bi ba noppi salaamaaleykum mbokk Touba maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal xalifa général des Mourides yàlla may ko wér guddal ay fanam ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Ahmed Bamba yàlla yombal ko tey ci guddi ba suba ba ginnaaw suba incha allahu rabi ñun waa service d'hygiène bu Touba ànd ko ak waa Touba ci kanam fas yéene noo puudar dëkk bi donc bisu tey bii incha allahu lépp loo xam ne ci biir rocade bi la bokk dalañ ko puudar tàmbale ko Kër Ñang ñëw ba Ndaamaatu bu ñu paree Ndaamaatu dinañ dem ba Guy Mbind dem Soura dem Touba mosquée dem ci Madiane yi jëm Daaru Xuddoos dem daaru minam ñëw ba xayra ñëw ba boori euh, poste de contrôle bu police boobu incha allahu rabi tey loolu la ñuy def bu subaa nag di leen génn rocade bi dem côté Madiana 1 Madiana dinañ dem incha allah ba jannatu dugub biir umu xoraa Cham dinañ dem ba daaru marnaan dinañ dem ba ndindi incha allahu rabi dinañ dem ba daaru xuróos ci ginnaaw boori hôpital jéemul yooyu yëpp incha allah dinañ ko def bu subaa bëgg nañ daal ci ñetti fan yi Touba gi yëpp dinañ ko puudar ànd koog waa Touba ci kanam loolu nag dinañ ko commencé bu mu minuit jotee ñu bëgg nag nit ñi vraiment bu minuit jotee nañu dugg seen i kër dugg seen i néeg ñam yi nañ ko denc ba puudar bi wala ndoxu linjaan bi du mën a agsi ci ñam yi loolu daal ñu ngi koy ñaan doomu aadama yëpp ñi nga xam ne dañuy ngoonal di féexlu vraiment bu minuit jotee nañu dugg seen i néeg jéem a tëdd ndax bëgguñu vraiment ndox bi nga xam ne ni moom la ñuy def pour xeex yooyu mu laa leen wala poudre yu laa leen. tubaa ci kanam dañ leen di gërëm di leen sant ndax euh, seen liggéey ci dëkk bi def naa ñëpp gis nañ ko ñu ngi koy rafetlu mu nekk loo xam ne nii yàlla na yàlla xeeb dolli mu nekk liggéey boo xam ne am na solo lool baax na ci Touba. brigade d'hygiène nag jot na Touba am service d'hygiène boo xam ne dafay mucc ayib te am nañ yaakaar ci tubaa ci kanam. ñu tabax service d'hygiène boo xam ne fii ci Touba ku ko gis xam ne lii service d'hygiène la waaw loolu daal ñu ngi leen xaar ci loolu. Touba ca kanam saa su ne muy dox ay jéego ngir suqali dëkk bu sell bi ni Touba wala lépp lu koy jëmale kanam ci màggaluk Touba édition 2018 programme bu am solo la ñu taxawal gannaaw fanweeri millions yi nga xamante ne bi yëkkati nañ ko dugal ko ci wàllu ndox mi ngir mbooleem sancaan yi nga xamante ne bi yoo doon am ay jafe-jafe ci wàllu ndox mi ñu mën koo saafara waaye lu mat junniy làmp yoo xamante ne bi fas nañ ko yéene dugal ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir dolli leeraay bi waaye yokk itam wàllu kaaraange gi ngir fas yéene pompe dëkk bu sell bi di Touba wàññi yooyu waaye aar xamante bii jëm na ci jàngoro joo xamante ne bii mën na fee juddoo loolu nag tax na ñuy soññ mboolem askan wi képp ku yor bassin sa kër wala barab boo xamante ne bii wala ndab loo xamante ne bii defukaayu ñam la na nga ko sàmm ba ñu def liggéey bi ba noppi ñuy soññ mbooleem borom kër yi rawatina soxna yi ngir ñu bàyyi xel liggéey bi nga xamante ne bii namm nañu ko def liggéey boobu nag nii la ñu ko fa yéene tërale ci mbedd yi rek la ñu ko yemale waaye donte dugguñ ci kër yi nag mboolem barab yi nga xamante ne bii baaxoo nañ cee def lu ñuy xewloo nañu ko waggar ba ñu mën a def liggéey bi ba noppi mbokk yi Touba ca kanam saa su ne rek muy dox ay jéego ngir lépp loo xamante ne bii dana tax liggéeyub sëriñ Touba bi rawatina luy suqali dëkk bu sell bi di Touba ñu mën ko def na mu ware ak Touba ca kanam yàlla nañu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñu jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abi jaayi xayri man